wa axada al injil حظه لكن من انت امام هؤلاء هؤلاء ثلاثه انت رابعهم وهكذا أصبحت الأربعة أصبحت الأربعة رمزا سحريا بل أصبحت منتهى والمنتهى لذوي البصائر شائع يا رسول الله فنصيبك من القرآن نصيب مفروض جاء جبريل عليه السلام بوحي من الله ليقول لك اقرا ولكن ما معنى اقرا بالنسبه للرسول فالقراءة بالنسبة له قضاء لدين العلم والمعرفة وكيف لا وقد انتهت الدورة الآدمية في زمانها الدنيوي تأتي بعدها الدورة الإنسانية بزمانها الأخروي ولكي يستولي الإنسان على العرش الآدمي كما الرحمن استوى على العرش سويا إذا كما يستولي الإنسان عرش الآدمي هكذا أعطيت دروس اللوح سيما وأنت اللوح وجاء إخوة اقرأ يساندونك فقلت من ذلك al insaanu wal quraanu axawaani idan jaa ixwatu iqra li yusaanidu hada rasul fa qaala qaalat aayatun minha sa nuqri'uka fala tansa wa aayatun uxra فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه وقالت آية أخرى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا وقالت آية أخرى فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وقالت آية أخرى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقالت آية أخرى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالون وقالت آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وقالت آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين وقالت آية أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقالت آية أخرى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ah moom de xanaa waxtaan wu barkeelu rek ni dama foog ni du ñu fi wax lu ñu waxul woon waaye ñun la sunu xam-xam limité même baaxu yonent bi limité wul waaw ah, bu ko defee kon nag waxtaan la neex borom kër mais ku moom fii ah waxoon nañ leen ko ca waxtaanu obélisque ba waaw fii yàlla ko moom guddi gi yonenti bee ko champ de course bi ku ñoo wax Cheikh Ahmed Tijani moo tàmbali woon di def gàmmu fii mu mel ni nag li ñoo sant yàlla moo di la mu waxoon ni moom la Ibnul Farad waxoon mag ma ba mu ñëwee ci moom ni ko duma bëgg nga ñaanal ma ma am aljanna te nee na Ibnul Farid ni ko looy doyee aljanna parce que aljanna jardin d'enfant la kon na nga ñaan leneen waaw may xool ci waawoon nag depuis ñu wax tudd premier Bourdou ba tey ma gis ni li xew yépp comme jardin d'enfant rek la waaw te ñun nag xajuñu ci jardin d'enfant waaw himmatukum alxuuru wal am na ñu nga xam ni xaaruñu ba ëllëg ñuy soog a ñaan rafaxu sutur fii ca àdduna la leen yàlla ubbi la rido ba waaw ñu jàkkaarloog moom moo tax leneen lu ñëwati day tuuti ci ñoom waaw mu mel ni nag eh dinañu dellu si sax ci nuyoo kilifa yi comme di ko oustaz Cheikh waxe maa ngi ciy waxtaan ak capitaine maanaam dafa am ñu maase te seen maase ñu bari teelu ñu ko yëg yonent bi dafa maase ak li ñoo tudde njub njub dafa judd rekk yonent bi judd yonent bi it maase ak li ñoo tuddee dëgg dëgg dafa judd rek yonent bi judd mais ñu laaj kon yonent yi ñëwoon avant moom li ñu indi la effectivement mën nañu ni indi nañu njub indi nañu dëgg mais seen njub ak seen dëgg dañ ko def sur mesure natte ko ci doomu aadama te nattewuñu ko ci nit waaw ndax li ko commencé ci yonent yàlla noox ba ñëw ba ci Isa yàlla moo ko pare ne àdduna moo tax li tolloog doomu aadama rekk lañ ci tëral waaye depuis yonent bi ñëw nag sallallahu alayhi wa la yàlla commencé di pare ne àllaaxira te dénk ko nit moo tax ni sunu boroom def bi mu liggéeyee asamaan yeeg suuf yi ba noppi mastawa ala al arj nit it bi yonent bi pare ci moom istawa ala arsh al ah, mu laaj nag yu bare yonent bi kon ñetteel bi ñëw mooy téere bi téere bi nag maasewul ak yonent bi yonent bi mage na ko ñeent fukki at waaye téere bi la mage ñeent fukki at waaye alquran mage na ko ay junne at laata ñu koy jox téere bi sakkal nañ ca daawut mu tudd Zabuur ñu sàkkal ca Muusa mu tudd Tawraat ñu sàkkal ca Isa mu tudd Injiil moom nag bosom soog a ñëw donc ci bi mu ñëw en quatrième position mais ñëw gi mu ñëw en quatrième position dafa tax yi yàlla bind yépp yi ci ëpp solo benn bu ci ne ni fas yéene nga dootoo passé ñeent ndax rek li yonent bi nekk en quatrième position waaw boo xoolee yi ci yi ñu miin ñu di ko tudd yépp bu nekk bu ñuy tudd ñeent lañuy ñuy tudd demal ca asamaan sa nga tudd malaaka yi mais malaaka yi li ñuy bare bare bare ñeent yi am solo ñu miin leen mooy jabrail mikail israfil ak azrail waaw maanaam bu dee dañ ko waxe ci baatu suryaaniya waaw xëy na bu ci wàllu li wolof miin jibril la ñuy wax wax mikaayil wax israfil wax asrafil mais buñ ko delloo ci origine bi du demee na jab il bu quwatullah mik ya il muy xikmatullah israfil muy safwatul xubb ñu ñëw ci azrail muy nusratullah donc ñeenti yooyu moo am ci kaw mais nga wàcc ci suuf ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa ñuy wax alxulafaul arbaa Abu Bakr Omar Ousmane xale mais kenn ku ci nekk moo tax ci biir jamono bu ñu gisee ñiy tiitaru naan diw mooy xalifa sàngam ñun def ñuy tiital parce que képp ku proclamé ni da nekk xalifa malaaka dina ñëw ci sa kanam ni la abu bakri ni siddiq siddiqi yar daf ko réer te mu ngi koy seet waaw bu ñëwee fekk ko ci yow dina ko bàyyeeg yow dem Umar ibnul ko réer moom it mu ngi koy seet bu ñëwee fekk ko ci yow du ko jëlaat daf koy bàyyeeg yoon waaw Ousmane ibnu Affan nuuraani yaam du ko bu ñëwee fekk ko ci yow du ko jëlaat dana ko bàyyeeg yow Ali ibnu Abi Talib taxkiimi yaam ba mu doon waxanteeg Muawiyatu ibnu Abi Sufyan ni ko nañu mesurer alquran li yàlla wax ni moom la soxla ci ci julli motul pour cent waaw te Muawiya daw nga xam ni amu ca dara waaw mu mujj ci taqsim mu mel ni ñeenti xulafaawu yooyu loolu mooy seeni qualité waaw arbaa waaw les quatre coins cardinaux mais ñun ñooy wax est ouest nord sud alquran du waxee noonu yàlla du waxe yàlla du tudd nord du tudd sud almashriqayni rek lay tudd ak almaghribayn waaw bu ko defee yow nag yaay àgg ci xam ni benn mashriq bi chimal la beneen janub bi Euh, beneen euh, maghrib bi janoob la et puis c'est parce que yàlla du tardel boppam ci ay détails waaw nga jógee fa ñu tudd la al anasirul waaw te mooy yi tax nit ñi di dund lan ndox ci li tax nit di dund la bokk ngelaw ci li tax nit di dund la bokk safara ci yi tax nit di dund la bokk suuf ci tax nit di dund la bokk wallaay bàyyi ko dafa tukkuloore rek waaw waaw dafa xamu neew ma jotam waaw donc arbaa yooyu yëpp mais bi gën a yéeme mooy alhamdulillahi fatiri samawati wal ard jaa'ili al malaikati rusulan uli mathnan wa thulath wa rubaa waaw xoolal loolu ngay gis firikat yi ku naan malaaka yi dañu am ay laaf or ay laaf ay réacteur la waaw ñeenti réacteur la am waaw benn bi ñu tudd ko al bu ñaareel bi ñu tudd ko albaaxisa bu ñetteel bi ñu tudde ko alfaaila bu ñeenteel bi ñu tudde ko alhamila waaw ñeent yi ak réacteur bu ci nekk am na boo xam ni moo yore mémoire bi al mudrika bu yàlla yónnee malaaka bi moo koy nattal fi mu war a dem ñaata distance la ak ci ñaata temps la koy def waaw ah. pour que mu def limitation de vitesse ndax façon bi ñuy dawe xajul fen waaw pour wax la yu mel noonu par ñeent ñeent ñeent ci un de tout ba ci jigéen ñi boo bëggee wut li ñoo tuddee polygamie polygamie façon biñ koy waxee ak bi ko alquran waxe bokkul waaw bëgg rekk euh, jigéen bu tagalu rek nga ni baax na pour man déedéet dañ la wax ni la ñeenti fonction mooy tax nga war a jël ñeenti jabar yi benn jabar bi bu mu foye sa lekk beneen jabar bi fexeel ba bu mu foye sa nelaw ñetteel bi fexeel ba bu mu foye sa njaboot lu dëgg bu ñeenteel bi nag mooy koo xam ni du foye sa kër ndax fu ne la fa war a nekk dana fa nekk booy tànn tànneel ñeent yi ci biir façon ku ci ne ak la ko war bu jotee mu def ko bu ko ca ñi ngi neneen ñu mënee dimbale nañ ko dimbale mais lii mooy option bi waaw pour wax la du nombre ay vocation la waaw yëpp nag noonu nga koy toppe ñeenti ñeenti ñeent doo xam ñeenti yooyu lu ko waral ba tax na ba ci weer yi al ashhurul xurum mu di ñeenti weer yoo xam ni yàlla day ñaan bu ñëwee bu conflit sax amoon nañu entere hache de guerre yi te def li ñoo tuddee cessez-le-feu ndax ñeenti weer yooyu ne pour lan parce que ñeenti weer yi benn bi mulk moo ko moo ko parrainé bopp beneen bi boole ko wut moo boppam bu ñetteel bi Jóob Jabaruur moo ko parrainé boppam bu ñeenteel bi Laahuut moo ko parrainé boppam moo tax boo defee ashirk billah te inna shirka la la zulmun azim kon nag fasiixu fi l ard arbaata ashhurin pour yooyu mën la pardonner man la pardonné ndax ñoom bokkaale yàlla bi nañu ko donc balaa yàlla intervenir ñoom ñu intervenir ba nopp moo tax yu bari firi wala fal noonu rekk mu jeex dafay laaj ñu di ko seet nit ñi xam lu ci ne li muy jariñ lan la waaw yépp nag un de tout un de tout ba ci boo fekkee nit benn gor nga dem tuumaal ko waxal ko lu mu deful foog nga indi ñeenti seede yu wóor waaw parce que boo indiwul seede yi ñu caw la waaw mais bu fekkee ni li xew kenn rekk a ko fekke ñeenti fekke wuñu ko ñu ni fa shahaadatu ahadihim arbau shahaadatin billah yàlla bu boobaa sa benn seede la ñuy jàppe ñeenti seede yi moo tax boo ci fenee rek àdduna tukki waaw pour wax la yooyu dañ ko xaw a négligé te importance am ëpp na waaw bu ko defee bare na bare na waaw dem na ba ci école yi almadahibul arbaa waaw boo jógee ca alxulafau l arbaa dem ci almadahibu l arbaa imam malik taxaw fi imam shafii taxaw fi imam abu xanifa taxaw fi imam ibnu hambal taxaw fi ku ci nekk ak lañ ko jox ak dëgëreem ak façon ba mu mën a intervenir ci sharia waaw nag bu yooyu yëpp amee ndax ki nekk en quatrième position te mooy yonent bi kon moom am na particularité bu muy am bu nit ñi xamul lan la ñu ngi ciy discuter benn bis man ak capitaine fekk ñu dem sport ba wàññeeku ñu toog di discuter foofu mu ni ma waaw baatu iqra est jàngal rek lay firi parce que ñëpp loolu lañ koy firee lii lii lii au nom de Dieu mais lii quoi li ngay liir lan la ba tax na yàlla li mu jublu ci iqra mooy fay ma fay ma sama bor yéen di déglu Baol Médias FM kaddu gi di bàyyeekoo fii ci Mbàkke tableau caabi xàll bu Tuuba Baol Médias FM wa minha li aadama al asmaahu comme daatul ulum yooyu jox nañ la ko nag pour que nga mérité ko fokk nga fay ma bor bi moo tax iqra waaw yonent bi war a sàkki pexe moo tax booy déglu yenn yi def lay réeloo waaw jibril ñëw waaw fii mbokk yonent bi loolu mooy la ku dey ni yonent beeg ni mu toll ci sunu borom yàlla yónni ku dey ni jibril nga xam ni réacteur yi ma wax malaaka yi ci des ñeent lañ ca am moom juróom benn téeméer la ca am balaa wàcc si ci kaw suuf am na fu ko yàlla wuutal foo xam ni fa lay demewu dindi réacteurs yeeg li mu àndal yépp ba soppaliku nit soo ko wàcc si ci yonent bi est-ce que kooku dina ñëw di mboq yonent bi naan ko jàngal mu naan ko maana bi qaari yooyu dafa xewi yooyu dafa xewi waaw danga koo wax capitaine ba ci waxin boobu firawna doon waxeek Muusa alam nu rabbika fiina walidan ah wa labista fiina min umrika sinin ngay gis ba léegi am ñuy waxeek yow ci boobu ton te mooy li firawna doon wax Muusa ba mu jaaxle xamul xamul lu mu koy wax mu ni ko xanaatu sama kanam nga juddoo maanaam du sama kanam nga juddoo mais nit juddoo sa kanam tereewul mu mu raw la ci waaw a ngi nii daaw ba ren ci jéem toppandoo Moustarchidine la ñu nekk ci gàmmu yi état bi li mu amoon yëpp jox na leen ko pour que ren gàmmu gi ñu jéem romb Moustarchidine mais duñ ñu dab abadan gis naa ko oustaz Alioune Sall sax xam naa dañ ko ndeysaan sonal rek pour mu teew waaye moom xam na fu mu bokk waaw waaw waaw gis naa ko it oustaz Modou euh, Fall moom it ma nga fa ca xaw ma xaw ma futur média la xaw ma waaw ñu tudd ko le miroir du Sénégal ma ne miroir bi nag jar na nettoyer tuuti waaw waaw pour wax la bu ko defee kenn ku ci nekk ak façon moo tax bi ñuy tàccu ñoom tey ci seen réception officielle di tàccu le ministre de l'intérieur ndax ni mu waxe man leen wax na feneen waaw yaa ngi nii toog yàgg délégation wax na ci seen kanam wax ci cofeel bu mu am ci man xaw ma dëgg la am diit yàllaa xam waaw wax ci daayire bi ni daayire bi amee discipline ak ni ñu organisé woo wax yooyu yëpp d'accord kenn ku ne yaa xam loo loo wax na bu dee dëgg la ci yow wala du dëgg ci yow yaa xam waaw mais man gëm naa ni li nekk ci mbooloo mi benn bu nekk Sénégal bu ko am amul du du tiitaru du tiitaru de billaahi alazim waaw la góor gi waxoon ca foire ba ndax Moustapha xam nga li nga réussir ci roox ni man man fi ma toog xam naa ko loolu mooy wax bi moo tax bu ñu leen bëggee delloo ci ay detaay du ma ko nangu waaw da di jël seen cap rek waaw bañ a changer li ngeen doon waaw loolooy tax daf may reeloo sax melentaan yi sax invité nañ leen waaw waaw waaye gis nga sunu boroom ko am xam nga waa Màkka dañ doon jéem a tooñ yonent bi naan eh moom yàllaam ji ñetti rekk ko gëm waaw te mooy Muusa Isa ak moom ñoom ñett ñooñu rekk ñoo gëm yàllaam ji sunu boroom wax yonent bi ni ko wax leen ni leen may yàlla yoo mu jeex maanaam pour wan leen ñoom ak importance bu ñu jox seen bopp yàlla it moo ko ñoo ko yool la yemale parce que li mu daj ci yow pour bind ko moom la daj ci ñoom pour bind leen et puis c'est tout waaw moo tax inna allaha la yastaxyi an yadriba mathalan ma baudatan fa ma fawqaha waaw waaw bu ko defee xam sa bopp dafay am solo yonent bi kon dañ ko wax na fay bor bi boru xam-xam yi ko yàlla jox nga xam ni aadama yi père de l'humanité mais kenn jox ko lu toll noonu looloo tax nag bokk yee yëpp takku bokki iqra waaw ñoom ñëpp ñu ne ah sunu doomu ndey nag lañu fal waaw te mooy ngeen xoroon waaw kon nag nañu dem jàpp ca ndax bu amee ci sagaru njaam yi ñu am ci waaw ka njëkk a ni ko a ah, sa nuqri'uka fala tansa xoolal loolu fala tansa lu tax parce que laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya walam najid lahu azma waaw mu ni ko aadam moo am na lu mu waxoon ak am na ay recommandation yu mu ko joxoon waaye dem na sàggan ba fàtte lépp looloo tax di ko dal dal ko ñu bëgg yow nag booy jàng nga def sa yitte ba li nga jàng doo ko fàtte waaw Baol Média FM ay noo koy wax loolu sa noqure u ko fala ten sa waaye ci turu borom bi lañ ko waxee waaw ñu jóge ca ñu indeeti beneen ci bokk yi ñu indeeti beneen ñu wax ko ni ko inna hada alquran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashiru almuminin waaw ñu ko gis nga lii ñu ñu la jox nii ni la nga jàng ko lu nit jub jub jub ak fu nit mën a yegg du tere téere bi mën na la gàgganti waaw kon nag bu leen ko sàggane waaw ñu jékki-jékki beneen ñëwati ñu ko wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaun wa rahmatun lil ko yàlla def na ci téere bi lu nga xam bëgg yërmande ci sa bopp ba nga am jàngooro boo bëgg yàlla saafara ko boo ko jaaree ci alquran yàlla mën na la ci defal sutura waaw beneen ñëw ndax boobu yonent bi dafay def bu jibril ñëwee di ko sa alquran fekk yàlla imprimé na alquran bi ci ci xolam mu jëkkantu di ko tari te jibril waxagul sunu boroom di ko waaw dé dé ko dé sarax bokk di di di ko sagal bokk bàyyi ko mu jaar ci ba noppi nga soog cee jaar waaye bu fekkee ni bu ñëwee bala mu lay sax yow nga wax yépp kon kay lu mu fi doon wut si waa di ko wax yonent bi waaye fekk na booba it yàlla moo ko def ci moom waaw mu indaale ko waaw merci yaarien sax dafa benn mhm. bi ci des itam wa ida qara'ta alquran ja'alna baynaka wa bayna alladina la yu'minuna bil axirati xijaban mastura waaw mag ñi daan nañ ko digle pour kuy xëy ngay jàng aaya boobu ndax am solo gi mu am solo waaw te moo di boo dee jàng alquran lépp lu yàlla woon wala mu amee lor yàlla mën na dox sa digganteek loolu ndax barke alquran waaw yu mel noonu ñu di ko jox yonent bi di ko ko sax ba ci faqrahu ma tayassara min alquran te mooy bu ngeen di jiitee ci nit ñi ne leen jàng saar yu woyof rekk saar yi bañ gudd ndax mën naa am am nañu ñu feebar ci biir sàppe si walla am na ñu nga xam ni ñu nga ca jihaad ja dañoo bëggoon a am ci yoonu salaatul jamaa rek moo tax ñu ñëw gaaw pour ànd ak yéen ràkk yi te delluwaat ca front ba waaw ñu mel noonu ñu di leen bàyyi xel ba duñu jàng lu ëpp waaw yu mel noonu benn bu ci ne mais jàng bi jàng bi jàng bi bi ci gën a yéeme mooy examen examen de conscience bi waaw mooy bu mujj ba iqra kitaabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiban kenn ku ci nekk yàlla ni laa jot nga sa kayit boo ko neewaa mun la jàngal li ci nekk règlement de compte amu fi yow yaay seetal sa bopp li ci kayit gi nga seet ci loo nekk ak ci foo jëm waaw mu mel ni kon boo seetloo yooyu yëpp te waxin la rekk ñu bëgg ko tàmbalee parce que li ci ëpp sax ci leçon bi mën na am suba ci bëccëg bu fekkee ni yaatu am na ñu mottalee ko ci bëccëg bi te moo yii nii ak lu wa yonent bi la concerné mais mu des nag njàng mi nga xam ne nag ak lu mi ñoo ko soxla ak lu mi itam li ci yàlla jàngale yépp ci ñaari baat rekk la ko tënk alam tara ak araayt li yàlla bëgg wax waa bi yëpp tënk na ko ci alam tara ak araayit bu subaa dinañ ci ñëw benn par benn mais bi ci gën a am solo ñu war ko retenir dama dégg fan yi ñuy wut lu ñuy naxe nit ñi naan diw bi mu fi ñëweek léegi réalisé na nangam réalisé na nangam réalisé na nangam ma ne waaw alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama dati l imad allati lam yuxlaq mithluha fi lbilad wa thamuda alladina jaabu soxra bilwad wa firawna di l awtaad alladina taxaw fi lbilad fa aktharu fiha alfasad fa sabba alayhim rabbuka sawta adab inna rabbaka la bil mirsad waaw maanaa buñ dee nawal nit lu mu def wala lu mu réaliser ci ci réewam te yàlla tudd na ñi mu tudd ba noppi tudd na aad tudd na iram tudd na samuud ah tudd ñëpp ba tudd firawna wa firawna dil awtaad alladina taxaw fi lbilad te ci biir jamono képp ku réaliser lu jaaxal nit ñi wala projet bu bu bu gigantesque ñu ni c'est un projet pharaonique di wane ni dañ koy tollaleeg la Firawna defoon et pourtant ñooñu yëpp ak lañu def yëpp yàlla nee na dina leen coow soo ba adaab ndax inna rabbaka la bil mirsaad waaw yàlla nee na yépp ndax bu fekkee dangay tabax dëkk yépp te yépp nga toroxal leen yàlla nee nga am affaire rek man waaw ba tax na ko nag ba defee kenn ku nekk nag yor sëj laara sa kaala waaw ku ne di téeleleli téeleleli nangam parce que dig nañ la rek dinañ la sarax nangam daf ko jar daf ko jar waaw e nee nañu président nee na dinañu sarax juróom-ñaari milliards juróom-ñaari milliards yi dañoo xam fu mu jóge ñi ko fi indi lan moo taxoon ñu indi ko fi problème mu Sénélec du ñu am courant yi coupé un peu partout ak li ñuy fayloo nit ñi kenn xamul ak route nit ñi amuñu fu ñu jaar oto yi fu ñu jaar waaw yooyu yëpp foofu la gënoon jekk foofu la gënoon jekk waaw foofu la gënoon jekk waaye dem ci borom tañ laay rek kenn ku ne dayele ay nangukatu àddiyaam ñuy lay wax di la ci waawoon nag moom da defa defe ni meeting a xew waaw ñi ci des sax correct nañu Njaasaan correct nañu Ceneba correct nañu hmm? un peu partout ci Tuuba sunu maam bu baax ba wax na la mu koy wax et c'est très très clair waaw ni ko bu fekkee ni def nga fi lu nekkit ma di la yëgal ni élection mosu fee am ba nga gàñe fi loolu li mu lan la ce qui veut dire que mën na ni parce que dama gis sànq ministre de l'intérieur di ko wax nan dafa dem Arabie Saoudite gis fa benn genre musée boo xam ni musée islamique la la fa nekk yéeme mu demandé roi bi pour ñu defal ko musée bu mel noonu ci Sénégal ndax mais Sénégal am na leneen lu mu tal lu dul musée hmm? yonent bi li ñuy dunde ci moom duñ ko jaar ci musée ndax li xew nii yonent bi bi ko Maodo di sonne sëriñ tuuba di ko sonne mais boobu ñoom xamuñu woon luy musée seen yitte rek ak seen taxawaay lañu def ba nit ñi yegg fi ñu yegg tey waaw ba tax na kon nag bu ñu bëggee nax nit ñi di ko jaar fii ak wax yu kenn xamul doxul doxul moo tax jël naa ay disposition euh, fontu baaxul fontu baaxul parce que loolu Mimi Mimi Touré wax wax ne bu ñu accepté candidature Amadou Ba booy boo ñu jàpp ni accepté nañu troisième mandat bu Macky Sall. elle a parfaitement raison elle parfaitement raison ba tax na ko nag duggaguma woon ci biir yëf yi mais booy boo ngeen pare waaw waaw parce que fontu baaxul. on en a assez waaw pare leen daaw sëriñ si fii yëpp lu ñu jàng jàng naa ko waaw te ëpp ñu may taalibe nag waaw bu ko defee kon nag bu subaa dinaa leen wax ñun fi ñu jëm sur le plan politique ak nan la ñuy pare sunu élection ak nag nan la ñuy ñafante ma wax leen ko ngeen baal ma du ñàkk teggin du dara waaw du ñàkk teggin du dara dafay am koo xam ne bu yeggee fenn fi waxal ak moom ci dimension bi nga mën a waxee ak moom waaw ndax loolu rek la mën dégg waaw bu ko defee kon nag nu ñu organisé wu te nañu bàyyi xel suñu bopp waaw xam na mbokk ma ndeysaan ñu ngi seet fu ne di ko jaar pour nuñ ko bloqué mais xam xamuñu ni man mën naa ko yóbbaale Sonko man mën naa ko yóbbaale waaw dañoo tas Moustarchidine hmm? ba góor gu am fayda ga góor gi mam ma jaw ngeen baal ma baat bi mu wax ka waxoon ni tas na Moustarchidine mu ne ko tas sa sëyu ndey moo gën a yomb waaw waaw waawoo góor gi mam ma jaw mag mu amoon fayda la waalo waalo la nag parce que waalo waalo yi moom dañu dëgër fiit lool waaw xam naa ci dara <laughs> xam naa am na ñu may xool di ree waaw waaye noonu la dafay am loo xam ne fayda rek a koy mottali waaw li may wax tooñu maa tey baalu maa tey rek mooy tax borom baale ko et puis c'est tout waaw ko defee kon nag suba dinañ yeggale cours bi ci diggante alam tara ak araayit li ci nekk yépp ci pédagogie ak sagesse yi mu àndal ak li yàlla di attirer attention nit ñi la ànd e mu mel ni nag tu ñu bëggoon ñëw rek barkeelu ay baat rekk parce que waxtaan yi du jeex te nit ñi dañuy sonn li ma doon wax ci suba rek bi ñu defee accueil bi ma ne am na ñoo xam ne seen gàmmu jeex na waaw bu ñu sañoon sax fi mu ne jël seen oto dem ñibbi waaw ndax dafa am loo xam ne ku mu doyul leneen dootu la doy waaw waaw boo defee kon nag ñu bàyyi xel ñi ñuy neexal di leen wut lu ñu leen di kiiyee moo tax ñu toog ba biig ci guddi ñu ñu téléphone ma vingt-trois heures naan ma waaw Euh, le premier ministre yónnee na fi ñaari nag ak ñaari gëléem ñun lu ñuy doyee ñaari nag ak ñaari gëléem dama leen di laaj rek mbooloo mu toll ni ñaari nag ak ñaari gëléem lu ñu yónnee feneen duñ ko wax ah liñ ñu waxoon yëpp yëpp dara defuñu ko kon nag ngeen jàpp loolu xam ni ci xeex ak ñun lañu jëm mais ñu nit pare nañu waaw waaw bu ko defee kon nag bala ñuy yegg foofu dinaa wax ak sama maam ba ja Touba parce que moom rek laa fi am comme allié waaw moom rek laa fi am comme allié tellement sincère tellement ouvert moo tax lu may wax ak moom mën naa ko wax mais à part foofu nag Covid 19 waxuma ci dara waaw waaw Covid 19 jeex na bu yàgg waay du dégg ah waay. boo defee kon nag. il y a comédie il y a comédie yàlla xam na ko waaw ñu bàyyi xel sunu bopp rek wàllu candidature bi dinañ ci waxtaan suba ma wax leen li ma gëm ak lu tax ma def choix waaw bu ko defee nag toog day daldi jeex ñépp takku liir yi sax nañ leen wutal couche waaw te kenn ku nekk ñu wax la naka ngay dompe waaw wolof moo wax ni euh, domp sax ci ci ci sot la bokk waaw waaw loolu waxit la waaw bu ko defee kon rek bu ngeen seetloo depuis premier jour ba bi ñuy yegsi presque Serigne Cheikh Tidiane ñaari yoon lañ ko fi wane ñaari yoon waa këram dara ku ne tudd nañ la fel yeeg teeñ yeeg ñëpp waaw ñu Serigne Cheikh bokkul waa këram bokkuñu comme noonu la nag jeex na ay ja waaw am na koo xam ni boo xamul lu mu doon waaw kay dina la wax boppam d'une manière ou d'une autre waaw bu ko defee loolu mooy li ñuy sànni ci ay baat rekk waaye ne nit ñi miin nañu lu ëpp loolu waaye bu ñu fi doon fanaan ba suba du doy barkeelu rekk moo ñu indi woon doon naa tooñ sax capitaine ni ko ndax dooma demal ca gàmmu ba mu ni ma man <laughs> buñ ko naree def rek ñu fomm ko ma ni ko ëpp naa def di fomm di ëpp naa def moom waaw waxin la rek ndax respect waaw ñu daan na kon nag hmm. ñëpp bàyyi xel seen bopp rek te njaboot yu ndaw yi di roy ci njaboot yu mag yi waaw eh, dañu taxaw ci suba ci balcon bi ba ci yàgg moom capitaine mu ni ma ni ma gëstu ko mu ni ma xoolal tonton Serigne Ndiaye ak tonton Malick Mbaye ma ko ma ni ko parce que ñoom ñooy doyen yi waaw ñooy war dëgëral xale yi waaw waaw ma ne ko moo tax nag c'est très important waaw nag leen tàllal loxo fi ñu taxaw ndax tuutiwul waaw ndax tuutiwul waaye am na ñu mel ni ñoom am pas-pas boobu sunu mbokku maxtaan njaay wa tabarakallahu nit ku amul morom waaw mais ñoom ñëpp ñu boole leen di leen ñaanal yàlla waaw ñaanal yàlla ñi nekk étranger sonn nañ ci ñun depuis daaw ak ren lu ne jënd nañ ko waaw yi ngeen fii gis yëpp ñoo ko jënd waaw toilette mobile yeeg réservoir yi def ndox yeeg yëpp diggante waa axe Europe ak waa Espagne lu fi war di farata rek taxaw nañu def ko yónnee ko fi waaw mu mel ni kon nag ñettee desi kenn ku ci nekk la nga mën def nga ko diggante waa États-Unis waa Brésil waaw waa Canada ñëpp waa Afrique du Sud yóbbaale ak Afrique kenn desul waaw mu mel ni kon nag ñu ngi sant ñëpp di leen masawu coono waaye di gërëm itam soxna yu jigéen yi waaw wax dëgg yàlla bu ñu ko talee gan ñi tal ko <laughs> ñoo nekk ca coono waañ ba pour lu ñu toppatoo gan ñi waaw soxna Fatima ak yaay nekk ci seen kanam ñoom soxna Haja ñoom docteur Maymuna ak ñi ci des ñëpp nekk ci jàppale ba waaw soxna roqee di jabaru cheikh yum bi waaw ñoom ñëpp ku ci nekk sumeeku nga la nga man yépp def nga ko ku ñu mën a tudd ak ku ñu mënula tudd waaw soxna sii nag waaw gannaaw bu ñu tuddee Mauritanie gii sama soxna bi jóge fa am courage lool fa tabaarakallaahu moo ki yaayam ñoo daan ànd mais bi yoon yaayam dafa xaw a amee grippe moo tax mu ñaan rek moom mu ànd ak njaboot gi ñu ñëw mu ànd ak ñoom tabaarakallaahu ñu am courage lool mu mel ni soxna itam ñaan na ma ni ma na nuyu soxna ami daal bi jógee Suisse mais li mu xamul mooy soxna amit daal wu jëm la parce que sama soxna la <laughs> waaw ba tax na kon nag bu ma ko nuyoo bu ma ko nuyuwul yëpp moom xam na orma bi ma am ci wàllam waaw waaye day jàppanteeg soxna ñuy def liggéey bi nga xam ni moo leen di jàppale ci man di leen jàppale ci liggéeyu daayira bi waaw seen délégation yi ñu àndal yépp ñu jóge Suisse ak ñi ci jóge fii ci Dakar wa tabarakallahu ñu ngi nuyu ñépp ah xam naa duma tudd goro ndax soxna bëggul sax ma tudd goro te mooy magam bi ñëwoon daaw ñëwaat fa tabaarakallaahu ànd ak seen njaboot yu ndaw yi ñu fekkee gàmmu gi waaw ah ñoom cër bi ñoo ko moom ñu di leen bàyyi xel te di leen sant ci seen teewaay tey ñaanal yàlla ñépp yàlla may leen ni ñu ñëwee ci jàmm ñu delluwaat ci jàmm incha allah waaw ko defee kon nag gan yi jógee Fas ak gan yi jógee Algérie comme ni ko Oustaz Cheikh waxe ku ne xam na ne ñun ci tariqa tijaan amuñu lu dul Seydina Cheikh Ahmed Tijaani waaw te Maodo Seydil Hadj Malick moo ñaanoon waaw amatana allahu ala diini nabi wa xubbi cheikhina al imam altayibi amina amina stajib duaana wala tuxayib sayidi rajaana te mooy mu ñaan ñun ñëpp ñu dee ci biir diine yonent bi Muhammad te ba noppi yóbbaale cofeelu Cheikh Ahmed Tidiane waaw kon nag ay sëtu Cheikh bu ñu ñëwee ah fa tabaarakallaahu di ñu wettali loolu dafay rëy ci ñun te fuñ ko àpp rek ëpp na ko waaw sama mbokk sëriñ Mouhamad Mbacke Abdoul Wadoud ah at yii yëpp moom la sunu maam ba ca Touba di yebal mu ñëw te bu ko wóoluwul woon du ko fi yebal jamono bu nekk waaw muy ñëw di ko représenter di représenter tout la famille mouride comme ni ñu ko waxe rek te Malick wax ko oustaz Cheikh jox ko tur yi ñoom ñëpp ku ne sama soppe nga waaw tabarakallahu ah xam na dinañu tudd gore yi waaye la mu di Moustapha Gaye di boroom këru soxna Fatima ak Serigne Cheikh Omar Kane di borom këru soxna Umul Xayr di magu xale yi wa tabarakallah maa ngi koy gis sànq sax ñu invité ko muy def benn intervention moo tax ma ni télévision yi ko yow di leen wattu waaw ndax ku nëbbatu it ñu génne la waaw waaw fa tabaarakallaahu bu ko defee rek yéen a ngi déglu Baol Média FM kaddu gi di bàyyiku fii ci Mbàkke tableau caabi xàll wa jëm Tuuba Baol Média FM Pape Cheikh Sarr ndax dafa ñëw nii ba sama papa Mansour nee nga yónnee ko oto mu jël si ko waaw ma ne ko bu ngeen demee ni ko moom mag la te dafa grippé te comme yaa fa mën nga toogee place waaw du jar sax muy déplacé wu di sonn waaw ndax la mu waroon def yëpp def na ko léegi xale yi ñoo ci des waaw mu ni dafa bëgg ma ñëw buuti te wut na hélicoptère bu ma yóbbu foofu ma foog ni fii ak buuti nag du laaj hélicoptère waaw néegam négam dem gi mën na nekk ndax yebal naa capitaine mu ànd ak ay bokkam bu jotee ñu dem sagal Pape Cheikh Sarr waaw dafa ne kon nag di fa demati dafa mel ni li nga def intéressé wu la waaw mu mel ni nag moom mag la man mag laa nañuy toog suñu roq di waxtaan rek te bàyyi xale yi ñu mottali li ci des waaw bu ko defee rek noonu la demee sunu bokk bopp yi délégation bi jóge ci sunu coalition bi waa ànd Yewwi Askan Wi waaw wa tabarakallahu dañu di nit ñu amul morom te am yéene am taxawaay bu ko defee rekk fayda baax na dañ ma yónnee message ni ma dañu bëgg a ziyaara ji xalifa bu Tiwaawan bi ak xalifa bu Cenaba ma ne ah ci des di d'accord naa waaye bu dee xalifa bu Tiwaawan bi jaru ko ma ne ko wax ma ne ko parce que déjà prononcé wu na ni Amadou Ba euh, sera le, prochain président de la République bu Sénégal te comme man d'accorduma ci lool kon jarul ngeen fay dem waaw waaw jarul ngeen fay dem ñu ni ma militant yi ñooy tax sax ñooy dem ma ne ah waa xanaa bu dee loolu waaw bu ko defee kon nag nit daal bu la faalewul da ngay toog di ko xool waaw nii rek la demee waaw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 ñu ma yëf yee ko téye ndax dañu nekk ci préparer seen xawma loolu ñuy tudde naka lay tuddati parrainage xaw ma waa xanaa di ngeen ma parrainé bokk ok bu ngeen bëggee ma jële fi ñi fi nekk daal boo ngeen parrainé ma waaw waaw allah waaw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 waaw waaw waaw du demee noonu waaw mais eh, boo ñu def mu jaar yoon ah bu jaarul yoon it ñu jaar yoon rekk waaw ñi rek la deme waaw xam naa dinañ ne waaw kii moom lu mu xew la tey waaw waaye fekk na rek dama xam ni bu ma waxul dina am gor yu dul nelaw ñi sonn ci senegal dañu bare te am na ñu nga xam ne xamuñu fu ñu jëm mais xam ngeen ni ñii du dugg ci gaal yi di dee ci ndox mi ndax bëgg a génn réew mi dem feneen loolu lu ko jar loolu c'est trop ndax réew mu doy waar ñuy nax nit ñi rek yu kenn xamul di jël ay milliards di ko yàqaate nekk fii di foyee nit ñi rek waaw yu kenn xamul dem di jënd ay bonbon ah te jumaa jaa ngi nii ni tekk kenn mënu ko yeggale ah? ñuy nax nit ñi ni li ci des barewul te fekk ay onze milliards quelque la waaw ko defee nañ bàyyi foy te jublu ci dëgg jublu yi ci li ñu xam ñu xam ko li jaadu jaadu parce que itam Niger waruñ ñu ëpp fayda fii la France doon nekk di yëngali loxo naan day écraser junte euh, militaire bi nekk euh, Niger ndax seen ambassadeur du ambassadeur baa nga ne par force nañ ko pour mu dem ñibbi France ah parce que fontu baaxul fontu baaxul ñun ñooñu ñooñu ëpp fulla te ñooñu ëpp fayda waaw parce ñun ku ñu jox euh, cere baa sa salte rek ñu génn ci li ñu nekkoon te loolu baaxul loolu baaxul na ngeen am fayda nag te ngeen taxu waaw waxuñu ko pour dem di xeex mais jël suñu responsabilité ba lu ñu warul nangu duñ ko nangu et puis c'est noonu rek la demee waaw bu ko defee kon nag bu ngeen bu leen neexee ngeen dem nit daf doon def meeting on waaw waaw bu meeting jotee di ngeen xam ni meeting naa waaw waaye mu ngi ci kanam di ñëw waaw bu soobee yàlla bu boobaa ñi fi am solo ñëpp dinañ leen dajale waaw incha allah ko defee rek ngeen bal ñu àq bokk yëpp xam naa doon gen xaar leneen sax waaye bu ma waxoon asalaamualeykum rek doy na du dëgg dama ko fàtte tey nag waaw xam naa li ma doon xuloo moo tax waaw kon nag asalaamualeykum waaw Baol Média FM daal mbégte la ci biir Baol ah, kon ma jox mu sànni ay baat bu noppee ñu joxe ñaan libéré nit ñi ndax dafa nit ñi dañu fatigué am na ñoo xam ne sonn nañu lool surtout sunu gan ñi am nañu sunu gan aussi bu jóge Paris xam nañ duñ ko fàttee tudd waaye xam naa capitaine dana ko tudd ndax ñoom ñoo ma recommandé ak moom algérien la Paris la nekk bokk ci tariqa Cheikh Ahmed Tijani Chérif am lu ko yitteel nag ndax sëriñam ba mu amoon dafa faatu ñu dafa bëgg ñëw nag fii ci Sénégal rekk jokk li muy jokk fii yeggalee léppam ba xale yi jëli nañ ko indi nañ ko xam naa kon capitaine dina ci yegga yéen bu paree rek ñu joxe ñaan libéré nit yi ñëpp dem récupérer bu suba incha allah bu ñuy yeggale ñu yeggale ko ngeen bal ñu àq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ndigal de waaw moo ci tegu waaye guddi gu toll nii bërëb bu toll nii jëmm ju toll nii jaaduwul woon sax ñuy xalaat a jël kàddu waaye nag si waxuma la sa ndigal waaye sax xalaat doy nañu garanti xëy na nag balaa ma sori doon wax rek mbokk bi doon tudd léegi ñu ngi wax ni mu ngi tudd Boaïcha Buxtil ñëw na fii ci Tiwaawan fekkee na gàmmu gi incha allah ah lu fi jarati wax ndax mbooloo gi si ñëpp moom benn baat rekk fi am muy sa bos kon nag si loo wax loo tëral loo bëgg nañ ko yëg rek ñii faale wuñu dara du président du sëri du malaaka sa jëmm ji rek lañ faale si jëmm ji rek lañ ah coow ji bëri na comédie yi bëri na waaye comédie ku ko bëgg a seetaan da ngay fekk chaîne buy teg comédie waaye si sa ëtt gi farata rek a fi am te ci nga ñu yar ñii yëpp moom lañu xam ci nga leen yar moo tax ñoo raw ci réew mi kon nag si kàddu yi jarul gudd. sa ñaan loo ñaan teg ñu ca yoon ba li ci des yëpp incha allah ci mbaaxu yàlla ak barke ñi mu am ñëpp dana mat. incha allah kon nag ah ñuy amale fa kàddu gi ndax dañoo dañoo sañta bañ nag waaye yàlla xam na ni nga toogoon waxoo dara sax si ñu teg la bët ñëpp bég nañ kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu sax def daf ko yëgu ah dañ fi am ñaari invité yoo xam ne xam na bi oustaz Cheikh di tudd def leen fàtte tudd waaye yaakaar na ma tudd leen nag moo leen dàqal moo di Cheikh Bara Ndiaye waaw waaw yaakaar na jaru leen ma wax leen ko gis ngeen li mu daj waxuma sax ci leneen mais ba mu commencé di ma defendre booba kenn foogu ko waaw lu ne daj na ko lu ne tontu na ko waaw wa tabarakallahu waxoon ma ni dina ànd ak soxnaam pour ñëw gàmmu si waaw ñoo waroon ko tudd xam naa Cheikh def ko jotul noté waaye ñu di ko yëgal rekk ni présence am fii hmm? fa tabarakallahu am na solo ba mu ëpp ndax itam lépp lu ko kilifaam jaral ñun jaral nañ ko lu ko toll noonu waaw loo xam na ni ba muy commencé di défendre sama cause ci télé bi rek laa ko gisee waaw muy wax yu rafet yu ne sama anniversaire jot mu dem dajale taalibe ya mu am ñu ñëw ci saalam mu ne defal leen ma qasida da way ca kaw ndax dama koy participer ci anniversaire sëriñ Serigne Moustapha waaw njaboot ye defal ko ko fa tabarakallahu mu mel ni kon nag bokk na ci gor gor yi ñu téye woon ci biir prison bi mais am na góor gu nga xam ni prison mënul changer dara ci moom waaw nee nañ xëy na ay liberté conditionnelle ak yu kenn xamul yëpp ay faux problème la dana jeexi ji waaw dana jeexi ji te ñi nga xam ni seeni arriéré lañuy ñuy jéem a protéger ma di leen yégal ni arriéré du fi am man ma la ko wax waaw waaw bi ci des itam mooy suñu mbokk nag Abou Bakrin Samb waaw dafa mel ni xale yaa ngi kontaan fan yi yëpp ndax télévision yi dañu jaaxle lu tax kenn waxu leen ñu ñu teg lu bokk ci Moustarchidine moo tax nag ñoom itam pour bañ a indil seen bopp tuuma ñooy jël woyu Abou Bakrin Samb boobu rek kenn ku nekk di ko teg di ko tegaat waa gis naa ko ci lu mat ñeenti télévision wax dëgg yàlla léegi nii rek lañ ko mujj di ko see waaw ci ITV waaw ba tax nag Abu Bakr waaye nga sa yéene waaye nga sa cofeel waaw ma di lay yëgal ni it njaboot bi bëgg nañ ci ba tabarakallahu partagé nañ ko ñoom ñëpp ci seen xaw ma nu ngeen koy tuddati hmm? tabaarakallaahu ci seen réseaux sociaux yi seen yëpp léegi xale yëpp bokkal nañu way bi waaw ma dafa kon nag loolu ëpp naa xeeb xam naa bu fekkee ni suba yaatu na te demagu leen bëgg naa leen gis incha allah moom Cheikh Baare ci boppam ak euh, Abou Bakrin Samb incha allah nga am na teraanga boo xam ne ku la ko ji nga delloo ko teraanga ba du la wàññi dara waaw kon nag am na yëf yaa ngi noonu man xaw xaw ma ni woon sax ndekete mën naa def yooyu yooyu gaañi di def waaw léeg-léeg ñu dukkat dukkat dukkat ba jàkk ñu daal di tourné def def ñu ma ne ah loolu nag di moom <laughs> leneen la lu dul daara ji moom waaw ndeysaan mais c'est bien quand c'est bien fa tabarakallahu rafet na te jaar na yoon waaw yàlla yàlla fay leen yàlla barkeelal leen da ngeen taxaw gis nga bi bi Kumba Gawla Seck wooyee woyam boobu mu ma woy ñi sant si dafa am ñu ñu daje ni nañu wut pexe ci moom wut lu ko dal ba ñépp jàpp ne woy bi mu woy moo tax loolu dal ko waaw ma di la yëgal ni nag yow Abu Bakri ñu ngi ci say tànk waaw ndax ñoom ku ma laal la ñuy bañ waaye nag insha allahu xam naa dinañu dem ci seen bàmmeel layoo ko sax nag waaw waaye am na lu nga xam ni mënuñu ko dindi ci àdduna bi mënuñu ko dindi ndax yàllaa ko def te yàlla lu mu dindiwul kenn du ko dindi waaw bu ko defee ñu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm bu baax a baax surtout nag ba dëgg yàlla ah Cheikh Bara def di nit ku ma naw waaw sama mbokk ma leen ndeysaan prof sëriñ Babacar daf may wax toujours ni ma sëriñ Moustapha man mu ni ma Cheikh Bara il est pertinent waaw mu ni ma boo discuter ak moom da xam ne xalaat yi mu am mu ni ma Sénégal xamuñu nit waaw mu ne waaye man tabarakallahu discuter nag moom ay yoon waaye il est pertinent dama ko mujj a sopp sax ndax tabaarakallaahu xalaat yi muy génne waaw waa xam nga defa ni loolu nag ñi ko bokkal bare nañu ndax ñi fi bëgg dëgg moom kenn xamul nu ñu toll waaw kon na xam naa baat yooyu la bëggoon dolli ko rek am na nuyuwaat Oustaz Alioune Sall maa ngi koy gis ndeysaan di ko yërëm ñu ngi koy buux ca burdu ba waaw di ko buux ndeysaan ak tàngaay ba nga xamul yooyu ndeysaan ma ah, baax na ci ndax boo demee safara boo fa jógee boo demee aljanna ci nga xamee aljanna nu mu toll waaw <laughs> ah mu baal ma àq ndeysaan nit ku baax waay oustaz Alioune Sall fa tabarakallah ñoom ñëpp man dama leen di admirer ndax seen franchise ak xamuñu lu dul dëgg waaw lu dul dëgg duñ ca dugg waaw moo tax rek nag man ma admirer leen bëgg it fu ñu nekk rek ñu nekk fa ak ñoom incha allah kon nag loolu moo nekkoon kàddu yi na ko ne jàng fatiha ku ne jàng salaatul fatiha ñu def ko yeneen yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ñaanalante waaye bala ñuy ñaan comme noonu ma koy waxe woon sama mbokk bopp bi man mii maa ko wax mu ñëw waaw mu di mbokk mi Alioune Dia waaye nit ñu ca bari am nañu ko miin mais am nañu ko miinagul te li tax ma wax ko mu ñëw bu subaa dinaa leen ko leeralal incha allah waaw nit ku nekk ca Nations Unies la wala mas di liggéey Nations Unies di ko tànn di ko yóbbu ci gouvernement yi nekk Afrique nga xam ne xam na seen situation muy essayer di leen jéem a dimbale pour ñuy redresser seeni situation waaw ma am lu ma xalaat nag wax ko mu ñëw wuyu ma waaw dafa waroon dem Nations Unies sax pour rapport yu mu waroon déposé waaye mu ni comme soxla naa ko rek mu bàyyi yëpp daal di ñëw Sénégal fekkee ci gàmmu gi waaw moom Alioune Dia ma boole ko ak Cheikh Mbengue wa tabarakallahu mu di ko wéttali ñoom imam Moussa Gueye ñoom imam Cheikh Niang waaw fa tabarakallahu ak Abdul Wahab Sakho waaw ah, sama mbokkum bopp mi nag moom Alpha Diop waaw dama koy tooj bis bu nekk waaw waaye newoon naa ko dinaa ko booleeg yaay insha allah waaw fa tabarakallahu mu am taxawaay di coordonné wàllu soxna si wàllu daayira ba la mu ca mën a def yépp mu di ko def kon nag loolu dinaa ko wax nit ñi dégg ko walla da sama mbokk waa Casamance yi moom moo nekk sama digganteeg ñoom di leen toppatoo di leen bàyyi xel ñoom lu ñu soxla walla ñu am ko ci xalaat ñu wax ko ko mu wax ma ko mu mel ni tabaarakallahu Moussa dañu wax ni soxnaam dafa am doom bu góor mu tudde ma doom ba kon nag bay boo ngeen jàpp ne am ngeen benn moustarchid foofa ca Casamance waaw ndeysaan yenn yàlla def ko mag te yàlla barkeel ko barkeel ñi tolloog moom ñëpp nag te yàlla defal ñëpp sutura defal ñëpp tawfiq ñu jàng fatiha bi jàng salaatul fatiha ñu ñaanalante bu suba ngeen bal ma dama xaw a soj tey looloo tax sax ma dagg yëf yi waaw xëy na bu subaa nag ba ñu may ma ngeer tuuti waaw ma jël ngeer bi xam naa mën naa am dina xaw dindi affaire yi tuuti ko defee nag ñu soog waxtaan incha allah soxna yaa ngi rey rek jërëjëf euh, yéen nga xamante ne si yéen ngi ñu doon topp si seen rajo Baol Média FM ñi ngi woon fii de si champ de course ànd ak euh, sëriñ Moustapha Sy Khaydoul Moustarchidine wal Moustarchidaat si euh, waxtaanu gàmm bi nga xamante ne dañ koy amal si champ de course bi yi nga xamante ne si ñoom ñooy ay taalibe Moustarchidine ak Moustarchidaat sëriñ bi waxtaan si ay tomb yu am solo xam naa waxtaan bi daana gën a gudd waaye comme ni ngeen ko déggee yéen ñëpp si si waxtaan bi rek mooy que ni day dafa xaw a soj waaye jox Euh, taalibe yi ak soppe yi ak xarit yi euh, dox daje suba ak jàmm suba gi euh, xam naa si la a lu bare bare bare bare lu bare bare bëri waaye daal ku déglu tey waxtaan sëñ bi xam ni am na lu bare bare bare bëri loo xamante ni si selu na ko ci doxinu dëkk bi dénoncé na ko waaye tamit lu mel ne si doxinu li nga xamante ne si mooy diggante état ak kër sëriñ ci yooyu yëpp sëriñ bi am na lu ci jàngat waaye wax xalaatam mu nekk loo xamante ne ci moom ku xam Serigne Moustapha xam ne naka jekk noonu moom mosa nekk taxawaayam moom lépp loo xamante ne ci lu mu gis la lu mu gëm la da koy daal di euh, dénoncé di ko wax ngir euh, ñëpp mën koo jariñoo kon daal tey ñi ngi war fii ci euh, Tivaouane ci Sànqal Koursu ànd na ko Serigne Moustapha si njiital Moustarchidine wal Moustarchidaat mu doon amal waxtaan wi nga xamante ne ci moom la baaxoo daan amal ginnaaw ba nga xamante ne ci waajuram Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Al Maktoum génn na àdduna ndax Serigne Cheikh moom waroon amal waxtaan bi fële ci Sànqal Koursu ginnaaw ba nga xamee ni Serigne Cheikh euh, làqu na euh, sëñ Moustapha si di nekk doomam ñëw di continuer waxtaan wi avant Serigne Cheikh di làqu sax sëñ Moustapha commencé woon ni continuer def ko ñaari at euh, Serigne Cheikh doo génn àdduna mu mel ne kon Serigne Cheikh xaalal na ko yoon mu doogoo ak si li nga xamante ne si moom mooy champ de course si waxtaan bi nga xamante ne si moom la Serigne Cheikh daan def kon yéen ñi nga xamante ne si yéen ngi daan yéen a ngi doon topp fële di auditeur ak auditrice Baol Média yéen a ngi àndoon ak seen mbokk seen xarit Oustaz Abdou Guèye fii ci euh, Tivaouane ci centre de course euh, mu leen di jottali cérémonie officielle bi nga xamante ne si moom la Serigne Moustapha Sy njiital Moustapha wala Moustapha nga xamante ne si waxtaan bu am solo la day ñu bëri jariñu leen ci lu bëree bëree waaye rek comme ni ko waxee joxe na rendez-vous bi suba ak allah ci gën koo yaatal lu bëree bëree bëri ndax ko xam Serigne Moustapha xam ne ay waxam ko gën a yaatal boo déggee sax si biir ji ñu ngi naan bu ngeen bëggee li fi nekk jóge fi da ngeen da ngeen may kon surtout euh, ay ay làkk dafa mel ne koo xamante ne si tey euh, soxla na ci lépp li nga xamante ne si moom moo nekk kon daal xam naa faram-fàccee ak leeral yi suba ak jàmm lay doon incha allah si suba gi comme ni nga ko waxee si cérémonie officielle bi wala si centre de course kon ñi ngi jaajëfal ñi nga xamante ne si ñu ngi ñu doon topp seen rajo Baol Média di wax rek ba suba ak jàmm allah jërë ngeen jëf.